yaa ngi ci bu am solo. Mhm. yaa ngi ci boo xam ne macha allah. Mhm. acca waaw gis nga Aba euh, comme d'habitude sama rubrique euh, mooy euh, je suis parti de rien. Mhm. ni nga koy faral di waxee from zero to di ñam euro di ñam euro. macha allah ma demoon seeti benn daanaan boo xamante <laughs> yëpp xam nañ ko mais li ma gën a neex ci moom mooy que seeti naa ko ci beneen facette. taxawal taxawal taxawal baal ma waaye nga rayal ma téye. rayal <laughs> ma téye mu ma rek. mën nga cee from zero la. to hero nii rek di ñam euro di ñam euro. barki yonent bi mi ngi nii daj. sama loxo bu mu laalee sa bopp bi. di ñam ay euro di gën a heureux. yow ko rayal ko tee. kooku seet ndaanaan bi ma seeti woon il s'appelle tout simplement Mortala Fall l'ami des jeunes filles. Chéri Adjana mu ngi noonu. borom Sandaga. waaw demoon seeti. doom yaayu Morta doom yaayu kii euh, mam mam mam Seex ak Maysa Fall. Maysa Fall eh, seeti nga sama xarit. moom de laa demoon seeti. xam nga abaa day baax nga gis boutique bu rafet. Amadou ah, mën na ibbi benn boutique bu rafet mais day baax ñu dem à la source pour xool lan moo tax euh, lan moo motiver euh, Mado ba mu taxawal lii tey donc moom laa demoon seeti nañ dem xooli élément bi léegi ñu ñëwaat décortiquer. c'est important. macha allah mais dama bëgg tuuti ñu dellu ci ginnaaw euh, Mor fan la jóge tey euh, ba nga xamante ni avant muy jaay ay dàll fan la jóge lan mooy histoire Mor Talla. Ah, waaw histoire Mor Talla moom wax dëgg yàlla ba ni may waxee yoon yow nii dama nekkee woon démb noonu laa nekkee avant tout daal Mor bu du kenn pour jaamu yàlla bu gën a xeebu ah commencé ci ambulant avant ambulant bi sax def naa ay soudeur mécanicien ah, mason yëpp rek bëgg dara waaw léegi nag bu defee yooyu noonu a dajale benn tuuti. avant loolu sax njëkkoon naa am tuuti mu mu yàqu wax dëgg yàlla bi may dugg si Sandaga fi maa ngi koy fàtte bu téeméer ci laa commencé waaw doon jaay musuwaar bu tombé tàngaay ma téeméer ci musuwaar Kleenex ah ma jaay ko su ma ko jaayee mbir mi dox ma ñëw fekk sam pap mu nekkoon fii ci rond-point bi doon jaay ay dàllu bal affaire yooyu noonu wax dëgg yàlla mbir mi daal ci moom laa ko jëlee li yu su waye rek nee na doomi mbër jàngil bëre lii moom lu ma xam laa. macha allah euh, dégg naa ci say kàddu ni euh, sa papa nga fekk mu yor métier bi yow it nga ñëw dugg ci rek topp ay tànkam mais Mor euh, comme li nga wax sànq ah, jaar nga fu baree bare mais la. comme li ma wax ci ndànk-ndànk rek parce que boo xoolee bu xam nga tey jii nii lépp xaalis moo koy def tey jii boo demee nga xam ne lépp xaalis moo koy def comprendre nga waxi kase moom indiwul dara du noonu ok daal xale yi dinaa ci gën a xuus ci kàttanu yàlla te bu yàlla defee jàmm ba demaat ba ñëw xale dina ci gën a sant seen bopp. jeunesse bi toog jàkkaarloog yow di seetaan am na ñoo xamante ne dañuy bëgg a débuter ci dara comme li nga wax ni téeméer man xalaatuma woon ni téeméer mën nga débuter ci benn projet mooy euh, jaayu mouchoir bi nga wax mais tey yow yow mi jàkkaarloog ñoom ban message nga leen mën a lancer ñoom euh, pour ñu gën a jàpp gën a góorgóorlu. waaw ah, message bi leen ñu liggéey bañ tontu waxi noonu da ngaa da ngay def pat ak organiser du boo ko xeebalee na laa dimbali day gaaw baa mu yéex rek ku ci nekk ak suñ borom fu mu la appal sa date te mbir moom bu commencé neex day neex rek bu naqaree nag nga daw doo xam foo jëm. bu barkeel daal moo gën ku ci nekk looy wut na barkeel day wax dëgg yàlla ndaw ñi bu ñu yàkkamtee ku ci nekk ci la nga nekk gëm ko. ay denc. ma koy jaajëfal bu baax donc lii la woon seen rubrique je suis parti de rien tout simplement pour ngeen xam ne dara xëyul sotti comme ni ko Mor waxee xam naa dinaa ko décortiquer foofu euh, ci plateau bi euh, di remercier ki nga xamante ni mooy Aba di remercier Karim euh, sama team yi donc di leen jox rendez-vous ci beneen numéro incha allah. c'est extraordinaire lii dafay yokk nit jom. day yokk nit fulla et puis c'est ça euh, lii mooy suñu rôle ñun di wane exemple yi nga xam ni ay xale mën nañoo xool ci ñoom mën nañoo roy ci ñoom terewul ñoom ñu nekk ay xale mais ñu commencé ci dara ba tey ñu yegg fi nga xam ni fa la ñu yegg seeti woon nga xale bu am jom xale bu am fulla ku am fayda koo xam ni ba ñuy ànd man ak moom yàgg na te lii salaam salaam alors euh, maa dikkati ci seen euh, rubrique nga xamante ni mooy je suis parti de rien tey nag damaa ñëw ba Sandaga seet si ndaanaan boo xamante ni kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal ah nekk taalibe sëñ Saliou nekk chéri àjjana muy Mortal Fall borom Sandaga maa nuyu Mor. waaw maa ngi lay fay. ci jàmm li nga noonu may naa la ci benn paire daal balaa ñoo commencé. ah maa ngi lay dalal jàmm maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp ah maa ngi nuyu Aba ah séeri mami nit ku baax moom démb la. waaw moom lépp fi la ko fekk. macha allah kàddu yi rafet na Aba moom dafa doy waar nañ ko bàyyi de côté rek Aba moom du changé euh, mais Mor macha allah ku dugg ci boutique bi li muy njëkk a wax mooy macha allah mais dama bëgg tuuti ñu dellu ci ginnaaw euh, Mor fan la jóge tey euh, ba nga xamante ni avant muy jaay ay dàll fan la jóge lan mooy histoire Mor Talla. Ah, waaw histoire Mor Talla day moom wax dëgg yàlla bu ni may waxee yoon yow nii na ma nekkee woon démb noonu laa nekkee avant tout daal Mor du kenn ku dul jaamu yàlla bu a xeebu ah commencé ci ambulant avant ambulant bi sax def naa ay soudeur mécanicien maçon yëpp rek ku bëgg dara waaw léegi nag bu ko defee yooyu noonu ba xaw a dajale benn tuuti te avant loolu sax njëkkoon na am tuuti mu mu yàqu wax dëgg yàlla bi may dugg si Sandaga fi maa ngi koy fàttaliku téeméer ci laa commencé. waaw doon jaay mouchoir bu tombé ak tàngaay ma ngi doon téeméer jënd ci mouchoir Kleenex ah ma jaay ko bi ma ko jaayee mbir mi dox. ma euh, ñëw fekk sama papa mu nekkoon fii ci rond-point bi yoroon table doon jaay ay dàllu bal daal yu chinois euh, affaire yooyu noonu wax dëgg yàlla mbir mi daal ci moom laa ko jëlee ni Youssou wooye rek nee na doomi mbër jàngil bëri lii moom lu ma xam la macha allah euh, dégg naa ci say kàddu ni euh, sa papa nga fekk mu yor métier bi yow it nga ñëw dugg ci rek topp ay tànkam mais Mor euh, comme li nga wax sànq ah, jaar nga fu bare bare mais lan moo tax yow nga resté ci li nga xamante ni mooy jaay daal ak jaay daal ni mu méttee Dakar jaay fi ni mu méttee tax yow sa choix ci jaay daal ba tey nga taxawal lii. dëgg la paa bi jàngal na ma métier bi xam naa ko daal yi wax dëgg yàlla macha allah xam naa ko mais suñu borom moom wax dëgg yàlla defal na ma taw tawfeex bu baax a baax a baax tey ji ci table jooju ma ko fekkoon mu formé ma tette ma tey moo a lii lépp waaw wax dëgg yàlla rëccuwuñ ci dara daal yi xam nañ ko te incha allah ca kanam rek la jëm. Euh, mais Mor gis naa euh, boutique bi ah am na ay dàll xale yu jigéen am na dàllu xale yu góor am na ay sax xale léegi. waa léegi dàllu xale yi ci kàttanu yàlla moom dama ciy gën a xuus parce que comme li ma wax ci ndànk-ndànk rek parce que boo xoolee bu njëkk nii rek moo fi nekkoon parce que nekk fi comprendre nga lépp day nekk ci suma xol. mais xam nga tey jii nii fii lépp xaalis moo koy def tey ji boo demee ci réewu tubaab yi comme dëkk yi may dem Amérique wala Paris da nga xam ne lépp koy def comprendre nga waxi kase moom indiwul. na ay sénégalais yoo xam ne bi ñuy tàmbali nii la ñu tàmbali ak dara et tey ay chef d'entreprise la ñu ah ñii ñu ngi ci yor seen ay njaboot ñii ñu ngi ciy tukki di dem fu nekk ci àddina bi ah et pour man euh, mooy li Samira doon wax tout ay exemple la yoo xam ne ah ndaw yi surtout cette génération qui la là dañu war a roy ci ñoom et la plupart de ces jeunes fii tey au début bi ñuy tàmbali lañ leen di xeeb cest ñu yaakaar ni mukk dinañ ci mës a am lii parce que jaay daal abaa il faut dire à l'époque nit buy jaay daal affaire bu ñàkk fayda lañ ko. mais tey yaa ngi gis ambi cuus yaa ngi koy ah, gis di gis ñeneen mm-hmm. c'est des exemples. Mm-hmm. dëgg la de en tout cas li may wax rek mën ngeen sax wut benn pot euh, bu dee 100 par jour ngeen fay def bu yàggee dina leen jural dara jeunesse su léegi li ma yaakaar ne la ñu mooy patience après mm-hmm. te patience c'est très important boo bëggee yegg fenn surtout Sénégal ni mu méttee xam mm-hmm. nañ ne fépp la méttee côté yëpp ay lakk mais bu ngeen ko bëggee da di patienter ngeen euh, investir surtout nag parce que yor benn tey ne dama koy taal tey loolu moom yaakaar beneen yoon rek ma demal seeti beneen daanaan. amuñu patience waaye amuñu organisation. surtout dañuy bëgg di am ñaari junni. di hmm. bëgg di xëcc loo xam ni ñaar fukki junni lay def. effectivement dañu hmm. doylu manque d'organisation dañu bëgg prouver. Hmm. waaw dañuy bëgg wane man la diw di te kenn bët koo xam ni seen wërsëg du benn xam nga ñun lu ñu dal yëpp dafa metti te yàlla noppi na bu yàgg waaw ñun lu dal metti mais daal ku xam li nga mën di ko def boo tëddee da ngay nelaw de ba pare mooy comme li nga wax sax Aba mm-hmm. excuse-moi dama la dog mooy li nga mën a am tey tey tey sóoraale ni rapidement mun nga ko ñàkk suba. effectivement moo tax boo amee li nga naan li ñu naan tepp tepp moo gën yu rek boo yàkkamtulee rek mooy di nga ñàkk te après mënoon na la jural leneen mais la base c'est l'organisation mm-hmm. te y un autre message aussi qu'il faudrait lancer parce que xam nga xale yi ñu ne bel tamit am nañ projet mais ñu bare aussi je pense que il faut que ñuy wut li nga xamante ne moom moo di tey boo demee ba ibbi sa yëf nga dem fi nga xamante ne moom moo di ay apix ak yooyu ah, wut sa ay NINEA wut sa ay registre de commerce parce que mun na la ibbil yeneen bunt mhm. yoo xamante ne ëllëg dina jëriñ di nga ci mën a tukki dina mun a am ouverture ci sa wàllu liggéey et c'est très important dëgg booy liggéey di denc di nga économiser ba mën a économiser loo xam ne na laa yóbbu ci benn festival bu mag festival du Sahel nga dem xool lan moo fa xam xam nga ñun mosuñu faa dem mosuñu faa dem ba découvrir festival bëgg xam ah, ah, waaw bëgg nañ bëgg nañ ko découvrir te dinañ ko découvrir léegi Abba euh, c'est la sixième édition euh, di festival du Sahel boobu nga xam ne euh, artistes yu mag ci Sénégal jaar nañ fa d'ailleurs il y a quelques années Youssou Ndour moo mës di nekk parrain bi moom lañ koy parrainer à l'époque bi mu nekkee ministre on se rappelle de mu njëkk def def après bi mu doonee ministre foofu la woon à Bumba donc ñoom dañu koy defaat pour cette année ñi ngi ko a def le 25 le 26 ak le 27 euh, bi ñu jëm février am na nag ay ndaanaan yu bëri yoo xam ne dinañ ci participer Baba Maal Daara J euh, Samba Peuzzi et bien d'autres mais tey on a le plaisir plateau